nekk am murit safar dafa rëy ci moom ndax sëriñ bi dafa wax ne lu mu am rek ci weeru safar la ko ame loolu lu muy firi mooy lim bëggoon te nekkoon biir Sénégal nekk ci njabootam nekk ci ay soppeem mënu ko fi woon a am mu ñaan boroomam yàlla euh, jaxase ko ak ay noonam samaane ya xijjeejin mu ne ci ñoom ñu di ko def lu ko metti def lu ko naqari mu di ko yëg nit nga xam ne ni la ko kaneen doon yëgee buñ ko ko defoon mu muñ ko waaye ngir yàlla ba yàlla fayee ko loolu mu tegaat ci ay at loola di continuer di continuer ba nim ñëwee njaarim ba loolu mu mujj woote nag bis boobu ne képp koo xam ne ki mbégum sama mbég sa mbége maa ngi lay ñaan cant gi may sant sama borom lottu naa ci nag ma santale yàlla te bu ci xeeb ganaar ba ci giléem bu ci naw giléem kon bokk na ci lim wax ci weeru safar wi yaa man xamaani xan muhaadin wa safar wa xaadili xuyóorahu minhu safar yaa xaa lii doon a kasbin wa safar mux ji la kasbin wa silaahin fii safar loolu rekk doy na sëkk kon nag bis boobu lañ tànnoon ci at moomu ma leen wax ne nañ fi ubbi jàngu bi fekk jàngu bi it di daara ji naka jekk danaa ko di wax képp koo xam ne kii ci sëñ Tuubaa nga askono jàngale ak jàng danga ko war a def muy sa mbir hmm? ndax naka jekk ba mu jógee Mbàkke Kajoor la daldi di sanc ay sañc yóbbu fa ay nit ñuy jàng ak a jàngale waaye yemul ci loolu li muy ñàkk ñàkk jot mu taalifal nu ay téere yoo xam ne xam lépp xam-xam la taalif na ci tawxiid taalif na ci fiq taalif na ci tasawuf taalif na ci naxwu taalif na ci makaarimul axlaax yooyu yëpp bëgg rek jullit yëpp man koo jëriñ waxuma la murit waaye jullit yëpp man cee jëriñ kon nag képp koo xam ne yaa ngi xeñtu mbooram eh, da nga war a def loolu mooy sëb liggéey bu jëkk ci sëb liggéey mooy jàng ak yar ak yare ndax loolu moo tax lim fi bàyyi mën a continuer lim fi bàyyi di gën a mën a rafet da dara bañ koo jaxase loolu nag moo indi woon ñu jógee Touba ci kàttanu sunu borom bi nu yàlla joxe barab bi it te looloo taxoon ñu di ko laaj ñu daal ko ci def ci baaxu sëriñ bi boobaak léegi